nag euh, fenn lay tënk rek mooy jaam bu ne fi saxut fi mhm. dana ñëw nga wéet sa borom mhm. ñu laaj la lii ak lii lii ak lii ak lii mhm. bu ko defee nag kon ko di maamay ñaa moom dafa wax ne dañ ko tuumaat te ko tuumaal du dëgg ah tamit moom it taxaw na ne lu ko tuumaal dëgg laa nangam nangam kon moom daal lu ko war mooy daanañ ko teg terewul yàlla moom gëmmut na la wut xoolut maamay ñaa tamit moom bu taxawee ne tamit lii ak lii tamit na bàyyi xel ne bés dana ñëw kenn ku ne si ñun da nga wéet sa borom. Mm-hmm. nga layoo loo xam ne moom nga fa nekkee woon kon moo tax loolu jar na ñëpp di ko bàyyi xel. Mm-hmm. ba àddi àllaaxira ñëpp képp ku ne da nga taxaw yàlla oola. Mm-hmm. yow kenn kese lijjanti say dossier te kenn du ko fekkee kon moo tax loolu rek bu ko nit ñi bàyyee xel. dossier moo gën a waaw te dossier yooyu bu ko nit ñu bàyyee xel rek dana baax di ñaanal Sénégal nit ñi ñu gën a daal te di ñaanal yàlla yenn nañ àgg jàmm ci 2024 ku yàlla Euh, bëgg mu jiite Sénégal mu jox ñu ko nekk ci jàmm. <laughs> du samay wax nag sénégalais yi ñoo ko wax ñoo ne ndax ab saak yi danañ ko dajaleel xaalis ndax ab saak yi jot euh, l'islam daganal la ci moom ñi fay waa waaw xam nga xam nga sénégalais moom. Hmm. Euh, wala du ma wax sax nit ku ne ak noo gisee. Hmm. xam nga man dëgg yàlla man moom mënumaa taxaw waat si hmm. leer na ma ne diw sàngam sàcc na. waaye nag comme leer na ba nga ne sàcc na. ah sàcc nag moom. bu dajaleel bu yowoo nga téye ci sa loxo. waaw nga loxo moo gën sàcc na ci l'islam waaw. ah sàcc lislaam comme lu ñu yàgg a jàngale rek bu fekkee sàcc nga loo xam ne passé na romb dinaar lislaam dana teg àtte rek mm-hmm. mooy dagg sa loxo suspendre la yooyu yu si war. Eh, fii di ko fi daggoon loxo. waaw ah, dafay ne waaye man mënumaa teg. <laughs> léegi léegi léegi léegi oustaz ngay gis euh, ki nga xam ne moo di euh, euh, muy que Ousmane Sonko ak benn avocat boo xam ne dafa waroon a jugee fee ca. Euh, di euh, France. pour mhm. ñëw Sénégal mën a défendre ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko waaye nag démb ci guddi jot nañ benn euh, jot naa benn lettre buy wane ne maanaam ñoom ministère bi li tax ñu refoulé kooku noonu kooku daf daan yàq yëkkati wala dañoo defee ni dafay yëkkati yenn kàddu yu yu amul teggin di ko teg ci ki nga xam ne moo di suñu njiitu réew di. Mhm. président Macky Sall mu looloo war a tax ñu refoulé ko pour mu dellu France ba nga xam ne mayuñ ko agsi fii nii ci biir Sénégal loolu lan nga ciy xamle lekk oustaz maanaam ndax tey jii nii buur. suñ ko waxut lu ko neex rek dafa war a rey wala dafa a dàq a def na ne waaw mais man sax euh, ba ma déggee kii bi xibaar bi amoon na si duut mm-hmm. waaye dem si guddi comme lu nga wax mm-hmm. ba ma seetaanee kii bi mooy xibaar boobu nga wax mm-hmm. ah ñoom nag bu fekkee li ñu wax nag loolu mooy lu nekk moom loolu mooy ñun ànd nañ bu baax ndax ñun suñu président ak ku mën a doon doomu réew mi dafa war a respecté président rawatina doomu réew mi keneen ndax comme que ñun tooguñ di saaga seen président dara waruñoo wax seen président dara waaye si beneen version muy Ousmane Sonko am na droit jël avocat fu ko neex. Mhm. mu war a dugg si réew mi ndax réew yi moo demee noonu. Mhm. comme ñun ñu amee droit mën a dugg France ak Amérique ak nangam ak nangam ñoom it noonu la amee droit bu fekkee ne yu dëkk bi laaj seen mën na war nañoo mën a dugg. Mhm. man daal lu ma gisoon mooy bu fekkee ne lu ñu wax démb loolu mooy lu ne fekkee tamit nekkut kon waroon nañoo bàyyi Ousmane Sonko ndax am na xàq boo xam ne am na droit jël avocat mu ñëw layal ko. kon moo tax lu may waxaat ba léegi rek mooy bu fekkee nag kooku li ñu wax ne dara ñàkkee teggin suñu président donte sax loolu moo nañ ko see wax na ko lii bëgguñ ko waaye nag alhamdulilah ba nga xam ne lu ñu gënoon a foog dem mooy dëkk bi dana tàkk yàlla dem na si jàmm. di ñaan yàlla jàmm jooju gën a nga ne borom xam-xam yi kilifa diine kilifa aada yi def nañ ci. Hmm. cër bu lëwa lëwa lëw hmm. moo waral nga xam ne moo di jàmm sax fii ci Sénégal. Hmm, wallaahi léegi léegi président Macky Sall ban baat nga koy conseillé waaw président bu ñu amee lu koy conseillé mooy ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla gën koo euh, dimbale ndax njiit yombut njiit yombul lu may wax nit ñi njiit nga xam ne bés boo demee àllaaxira yàlla dale oo yow dama kulu unaasi bi imaamihim mm-hmm. njiit bu ne yàlla dale o ne la kaay yaa jiite sa xeet lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii moo tax kon moo tax kon dañ koy ñaanal yàlla rek bu ko defee nag di ko ñaanal yàlla daf eh, nguur gi mu matali ko si jàmm ak sagoom mm-hmm. eh, ku yàlla def mu war a fi toogaat 2024 yàlla moom it defal ko toog fi ak jàmm mm-hmm. mu toog fi ak jàmm réew mi continuer di nekk réewoon naataange ndax loolu lañ séntu Sénégal Sénégal séntuwuñ fi xay jàmm rek lañ séntu Sénégal ndax ñu baax ñi loolu lañ fi ji kon moo tax ñu ngi wax ñëpp neen delloo si waa seen xel xam ne réew mi jàmm rek moo fiy xew waaw jàmm rek ak coono mu bëri bëri jàmm rek. ah démb démb def leen la ko ndax démb <laughs> jàmm rek ne Sénégal dana mel na ne nag waaye jàmm am na waaw barki démb si guddi toog nañ di wax bañ ndegoo pare ñu mee leen dara ñun daal lu ñu war mooy ñu yaakaar seen kuris yi nañ leen jàmm rek waaw mm-hmm. yaa salaam moom ku koy laal yàlla dana dimbal moo tax alhamdulilah yàlla def nañ si réew mi jàmm kon jàmm jooju yàlla na gën a continuer ba 2024 mhm. ñu dem si élection yi jàmm ku yàlla jox ndam li ñaanal ko mu toog fee jàmm euh, bu euh, nga xam ne moo waral waxtaan bi di yor yoru koor mhm. Oustaz euh, tey ji suñ temu tey ci yor yoru koor di yéene mhm. maanaam lan mooy yéene ndax nit ki weeru koor bi comme gars yi di laajee da nga war a yéene chaque jour. Mm-hmm. ne ci fajar gi ne damaa war a xëy woor wala ci guddi gi nga ne damaa bëgg xëy woor yéene ko ci sa xol wala da war a yéene ci li nga xam ne moo di euh, bi weer bi fenkee rek nga yéene ne weer bi yëpp fas yéene naa ko woor wala maanaam lan mooy yéene ak naka la ñuy defee yéene oustaz. waaw xam nga yéene dafa nekk loo xam ne. bu fekkoon ne jëmmu doomu aadama fekkoon ne yéene jëmm la. Mm-hmm. bopp bi mooy yéene. te yéen sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mbir yëpp mu ngi aju ci yéene. Mm-hmm. innamal a'maalu bi niyaati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa ba xadis ba jeex mu waxaat beneen xadis ne niyatul mumini ablahu min amalihi jaam bi bu fekkee ne lépp lu muy def rek na si jiital yéene mhm. yéene nag gis ne borom xam-xam yi kon nu nga laajte dañ cee ute mhm. am na ñu ne ndax benn yéene bi doy na ba weer bi jeex mhm. am na ñu ne ndax chaque jour da ngay beesal yéene waaye beesal yéene loolu dana war waaye bu fekkee ne am nga ngant bu la dab ci biir koor gi ma indi si exemple bu gaaw comme tey jigéen bu oree ba si digg weer bi ngànt jigéen dab ko bu ngànt ga dañee heure bu ooraatee rek day beesal yéene ana borom xam-xam yoo loolu wala nit koo xam ne dafa tukki si bëccëgi weeru koor mhm. xam nga dab na ko moo xam dafa tukki waaye nag kuy tukki moom lislaam dagan na mu ñàkk ko woor bu fekkee nag toll na si maanaam kilomètres yu ñu wax ne su fa tollee da ngay wàññi ndekki quarante huit kilomètres mhm. wala soixante douze kilomètres mhm. soo wàññee julli ñàkk a xoor waaye alxuraan sax dafa nasal ne wa an tasuumu xayrun lakum donte yéen tukki sax waaye bu ngeen ooree moo gën waaye tëtale woon na yéen sallallahu alayhi wa naa tukki ànd ak saxaaba maanaam mu dem ba si am na tukki boo xam ne sax dafa jógee Madina dem bay waaj ak màkk am diggante diggante dina màkk am na bërëb bu fa ne hmm. mu wàcc foofu ne jox leen ma ndox ma naan te si ba ci ki weeru koor nag mu ne képp koo xam ne yonent bi dox waaw ah? ah yonent bi dox ci koor tukki ci koor dagan na ah, daf doon tukki moom waaw da doon tukki fekk diggante boobu mën na loolu hmm. alxuraan mu ngi koy nasar euh, fa man kaana minkum mariidan aw alaa safarin fa iddatan min ayyaamin alxuraan wax hmm. képp koo xam ne da feebar wala ngay tukki doga bo paree nga fay yenen basi yene nak euh so demé ci baram xam-xam yi. borom misbaax dafa xone wa niyatu saabiqatu lil fajri fi kulli sawmin wa kafar fi shaari ka kulli sawmin wajibatu tatabi'a kal qatli wa zihaari la tatawwa moy yene mom day jitu bala fajar yene sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man lam yubitu siyaman yaay deg dégg xam la tulul fajri fala siyaama la képp koo xam ne fanaana woo kon yow jour boobu amoo koor kon koor. kon yé yéene soo xëyee oor amoo oor yéene dañ ko war a fanaanoo. yéene waaw mais doo bàyyee ba xëdd peer ne maa ngi fas yéene yéene maa ngi fas yéene koor déet maanaam koy fanaanoo balaa ngay tëdd ngay yéene ne maa ngi fas yéene yéene wala boo teelee eew te fajar xaragut nga teele yéene. te yéene daal par force chaque jour da nga ko war a def. non non si version yu ma wax. Ah. bu fekkee ngant dabul la si biir koor gi mais benn yéene doy na si weer bi. Ah, doy na ci weer bi waaw ah, léegi bu fekkee ngant dab na la ci biir weer bi nag ndiki jigéen bu amee ngant ci biir weer bi hmm. bu setee day beesalaat yéene hmm. am na sax ñu ne chaque jour day beesalaat yéene ku tukki tamit hmm. bu damay tukki ba ñëw commencé waar koor chaque jour am na ñu ne day beesal yéene yaa ngi dégg waaye nag uuteeg uuteeg euh, kooru kii naafi la ndiki or altine ak euh, alxamis xam nga yéen sallallahu alayhi wa sallam daf loolu moom bu la neexee sax mën ngaa bàyyi ba xëdd soog a yéene bokkut ak farata ndax sayyidat aisha wax na ne yunus sallallahu alayhi wasallam euh amna bés dafa dugg si foofu mu ne hal shay'an ndax am ngeen fii dara Aïcha ne ko dara amu fi mu kon fa inni saa'imun kon dafa ñëw mooy bu dara amoon dana lekk ba pare yéene ndax am ngeen fi dara ñu ne ko dara amu fi mu kon damaa or yaa ngi léegi yéene comme la wax dafa am ay façon bu fekkee ne nit ndax koor dafa bëri ay koor kooru ray nit am kooru ray nit comme nit bu rayee nit te juum ray nit waaw nit bu reyee nit te juum dafa war a oor. yaa ngi dégg ah, maanaam kafaara kafaara gi nag bu ko neexee mu oor. fi waxee ñu koy def dañ bëri de xëy na jam kenn toog bu fekk yaa ngi dégg. Mhm. wala li ñuy wax zixaar. Mhm. zixaar moom it mooy loolu si si wàllu sëy la waaye loolu après da nga koy fay koor koor googu tamit am na. koor rey ne ni ki tey koo xam ne dafa rey nit damay or ñaari weer yoo xam ne dafa togtalante comme weeru koor xam nga mooy weer boo xam ne waaye nag boo ci degee benn fan hmm. te tey ko hmm. loo ooroon yëpp day da nga koy commencé waat même boo doon ba mu ñetti fan nga xëy na waaye man damaa sonn waay dagg ko dangay ngay oral lépp. yaa ngi ah, dégg. léegi bu fekkee ne koor ak zihaar lu ñuy wax mooy nit ki góor moo wax jabaram ne ko. Mhm. bés ni ngi tey su ma séq tey maa ngi mel ni ku séq sama waay jur sama yaay. wala moo wax jabaram ne ko bés su ma la xoolatee rek maa ngi mel ni ku xool sama rakk bu jigéen wala sama nangam léegi après soo bëggee joteewaatee moom dañu naan déet kooku yow da ngay kafaara maanaam da ngay or tamit ñaari weer wala nga lexeel juróom-benn fukki miskin. mooy 60 personnes ah loolu du ndaw de bés ni ki tey ma la seexatee ak yow maa ngi mel ni ko seex ak sama yaay. déet loolu wax la rek oustaz. déet waaw lislaam nag loolu xasida de. ah. loolu ku ko wax jigéen jëkkër joo ko na ko bés ni ki su ma seexatee ak yow. Hmm. maa ngi mel ku seex sama rakk bu jigéen wala sama yaay mooy daal seexlu naa la. Ah, xam nga nit du ànd ak conscient tam di di di seex wala wala wala magam. yow nag boo demee ba koy waxee sa jabar loolu kooku lislaam da teg daan. Hmm. dañ lay kafaaraloo ñaari fan ki ñaari weer. wala nga lexeel juróom benn fukki miskin. boo koy gën a yomb yaa ngi léegi wala nga goreel jaam bu gëm. xaaral léegi euh, man ngeen euh, def seen i euh, commentaire ci suuf vidéo bi après ñuy jotali ko oustaz mu mën a cee waxtaan ak yéen maanaam ngeen indi seen i laaj laaj bu mën di doon rek te mu tegu ci xam-xam oustaz dana ko daal di forom fàcc jox la ci la gën ba tey tamit man ngeen dugg ci numéro bi 77 138 17 17 77 138 17 17 foo mën di nekk ci Sénégal rek wala bitim Sénégal nga andi say laaj joxe ko ki nga xam ne moo di oustaz dana la mën a tontu laaj bu mën di doon nag ci wàllum koor wala wàllum xam sa diine rek oustaz dana ko taxawee bu baax a baax a baax a baax euh, nga ne comme léegi euh, kii mu ne euh, nga xëy maanaam ci bë ci bëccëgu koor. Mm-hmm. kañ kañ lay ñaari woy dencante yi di mën a sëy ci bëccëgu koor naan ci bëccëgu koor lekk ci te dara du leen fekk. waaw jigéen boo xam ne dafa am ngànt. Mm-hmm.